سنة كايتا لوني نبور السلام عليكم بوك السنغال السلام عليكم بوك ادنا السلام عليكم يني سافو دي سي سيتان شان بو ماغ بوك دي سي كا تي في سنغال واو دي لن واخ ندسان نيي وات اك لو خليفه جنرال دو سنجاتا كايتا لو روا دافريك لو روا مانداي Cheikh Ibrahima Keita borom xam-xam bi borom jinne yi nee la ki nga xam ne nii dëmm bu la fa jàppee wala jinne wala rab wala nga am problème këyitu voyage boo ñëwee ci moom si ñaari ñetti fan sa saafara faju wax dëgg yàlla moom moom lañ jàkkaarloo tey amaat benn témoignage bu am solo wax dëgg yàlla ndeysaan suñu yaaboo yi ñu ngi lay nuyu di la siyaar mais bi sama rappel bi mu fi ñëw keroog bi muy génn ndeysaan neewoon naa ko yaaboo yi booy ñëwaat fii de incha allah yaay doxal sa bopp te yàlla def na loolu ci jëmmi Cheikh Ibrahima wax dëgg yàlla ñu ngi leen di bëgg di leen nuyu sama yaay. nuyu naa na nga def. maa ngi lay fay sama doom. mbaa yaa ngi si jàmm bu baax. li nga ma waxoon moo am maa ngi si jàmm ju baax a baax. alhamdulilah naka yaram bi. maa ngi sant yàlla bu baax. Ah. sant yàlla di ko sant. Ah. maa ngi sant yàlla bu baax di ko sant. Mm-hmm. man fu ne dem naa fa. Mm-hmm. dem naa si àll bi. Mm-hmm. dem naa si hôpital bi sama xaalis bépp jeex. lu ne ma def. munuma wàcc sama lal munuma lekk munuma naan. ndeysaan pour li may xool nii sax. bu may xool nii sax. Mhm. du ma xam li may xool nii lan la. ndax sonn. ndeysaan. bu ma bu ma tëddee sama lal lu may mën a def rek dañ may yëkki. dañ may yëkki teg ma fële bu may dem si bi dañ may yëkki. bu may lekk ñoom ñoo may sexal. ndeysaan sama put gi bañ. sama dënn bi bañ guddi du ma nelaw damay jël ñaari njëganaay teg. est noonu laay biiroo ba bët set. ndeysaan sonn sonn sonn sama doom yi fu ñu deen fu ne ñu dem fa fu ne ñu dem fa. bu ñu demee nag ba sos nag. Mhm. xam naa kii nag xaba waaye yàlla wax ka nag naka. Mhm. paa bi. paa Cheikh Ibrahima Keita. Mhm. dem leen fa. ma ne ko ah ndax ma fa demee naa gis tan. mu ma yaay nañu dem. ñu daal di ñëw. bi ñëwee nag ñuyunte moom saafantoog moom. mu ne incha nañ biir yër si yàlla. dëgg la mu ñëwee nag mu defal ma li may def daal di ma suur. sangat ma dëgg la. bi ma duggee si oto bi. Mhm. ba dem ba toog. Mhm. la sentir loo xamante ne lii si moom. Mhm. ma ne lii su ma yëgoon sa commencement ba laay jëkk dem si moom. dëgg la. su ma yëgoon laay jëkk a dem si moom. guddi jot. damay nelaw ba biddam gi. allahu akbar ñu ne sama yaay day ngi nelaw ku nekk di ma xool. ndeysaan. kayita kayita. sama yaay di nelaw waaw. ma njëkk nga tëre daan na laay naa la bët dafa set. waaw te yaay day yëgaloo dara ma ne waaw nelaw naa. ndeysaan ñu ne ma nelaw nga tarap. ndeysaan waaw ma ne leen indil leen ma ndékki. Ah. ñu ne ma dangay sangu jël say garab. Mm-hmm. ma daal di sangu. Mm-hmm. ñu defal ma garab yi ma jox. ma mm-hmm. daal di naan. ndékki mu jàll. ma toog di waxtaan sama njaboot. Uh-huh. am sama santé. ndeysaan si diggante démb rek ak ah, tey. waaw si diggante démb rek bi ma jëlee garab yi démb. Uh-huh. bët set. ma gis boobu santé ma lekk mu jàll ndeysaan man naa uh-huh. mu dem uh-huh. ma jóg toog samp samay tànk uh-huh. samay tànk taxaw ndeysaan ma sant yàlla nag sant ka ndeysaan da yàlla na mën ko amiin amiin ak ati ati ak da gis naa tan si boobu te duma ko bàyyi maa ngi sant yàlla bu baax a baax su ma yëgoon nag ba muy commencé ma teel ko xam dinaa teel a ñëw ndeysaan ndax gis naa lépp. ba tey mën naa waaxu dem ba sama kër. Ah. waaw man naa waxu dem ba sama kër te wax dëgg yàlla yonante ba waaw hmm. ah, kii kay dama koy bàyyeek yàlla yonante ba li ma defal nii hmm. dama koy bàyyeek yàlla yonante ba li mu man ren yàlla man déwéni déwéni déwéni déwéni déwéni déwéni di sama doom Binyana sama doom ndax man man ma ko woon hmm. ma dimbali indi ma si moom defal ma ni ma te ba léegi bàyyi ma garab toujours na garab yi garbi di ñëw may jël di am tan waaye kay naa waaye kay naa man na moo di toujours man di yàlla di ko sant booy bu nag ku ne nag booy boobu daw ñëw ñu ñaan yi yéex nag ku nekk nag mën na daw ñëw ku ne kii moom bu soba yàlla yoroon daba moom uh-huh. ginnaaw yàlla uh-huh. Sénégal moo fi teg loxo tey daa Sénégal moo fi teg loxo tey daa mën na moo fi teg ay ati maa ngi feebar. di dem di feebar di ma jàpp ak a bàyyi. di ma jàpp ak a bàyyi. xaw ma fu may aw xaw nu may def. ndeysaan wante kii. Uh-huh. ni ak moom Sénégal moo fi teg loxo. wallaahi mosumay gis lii. wallaahi mosumay gis lu demee nii. macha allah sa bopp. billaahi waaye moom te ko boo ñëwee. Uh-huh. dina def te yàlla tax. wallaahi te di nga dem soo yoon. man de maa ngi si yow tey maa ngi sama doom ji wax dëgg yàlla ba mu feebaree tamit mm-hmm. wax sànq la ma koy wax mm-hmm. ba mu feebaree tamit ñëw si yow mm-hmm. ba mu oññu ko moo demal boppam nekkal boppam doxal boppam doxal ñam ndeysaan waaw mu daal fa jege nag na ma fa ma jaaroon rek ngay nag fu mu jaaroon borul mu jaarale ma fa fa mu ma jaarale tamit maa ngi sant yàlla alhamdulilah alhamdulilah maa ngi sant yàlla nag di ko sant waaw maa ngi sant yàlla te yéen ñi ma fekk nag la ngeen ma waxoon tamit wallaahi booy boo la ñëwaat booy ñëw yaay doxal sa bopp wallaahi may ñëw tamit maa doxal sa bopp alhamdulilah nga ne ma waxoon naa la kat mën na la mu ngi ne moo tax ndeysaan te man boobu gaw ma si dara dëgg la gaw ma si dara waaw parce que sonnoon ngeen dëgg la sonnoon naa gaw ma si dara bañ may yëkki di ma nguufaan di ma teg fii defoon naa dootuma dox si ak samay tànk yi mel ni courant mel ni courant kay taamaande mooy nii rek laay ba cag suba ngoon ndeysaan waaw waaye bi ma ñëwee bay jël garab demaat dellu sawaat demaat dellu mu ngi nii alhamdulilah sant yàlla damay sant yàlla dolli ko sant damay sant yàlla léegi maa ngi lekk bu baax maa nan naan bu baax hmm. di nelaw bu baax hmm. di jël garab yi bu baax na nga ma koy jaarale maa ngi koy jaarale noonu lek ba suur naan ba maa ngi sama dañu hmm. fu dem da ngay yàkkamtee ñëw ndax sama yaay nga fa waaye ñoom ñëpp fu ñu dem léegi dañuy sant yàlla. alhamdulilah dañuy sant yàlla bu ñu ñëwee fekk ma toog. ndeysaan kenn liggéeyatul woon kenn dematul woon. si ñaari weer liggéeyul. macha allah nekk si yaayam rek. macha allah si yaayam. ndeysaan dañuy sant yàlla rek. alhamdulilah yàlla. foo bëgg a yegg yàlla la fa buur yàlla yegg. amiin amiin yàlla yàlla nga dunda dunda la yàlla fay te yàlla musal la si cat. amiin amiin yàlla la yàlla fay. amiin yàlla yàlla na la yàlla defal jàmm. amiin suñu yàlla mbooloo mu julli. amiin amiin yow ku la fay ay millions millions millions millions millions sax yow jar nga ndax yow naxuloo kenn. déedéet kenn na nga naxul. déedéet naxuloo kenn. déedéet ndax kat yaa ngi si dëkk bi am pagaay. waay sama yaay waxal waay ñu ngi si bi am pagaay. si dëkk bi am pagaay ndeysaan am pagaay am pagaay. waaw am pagaay waaye fii ku fi ñëw. wallaahi di nga xam ndax yow di nga nax nit wala doo nax nit. télé bi dina ko wane te borom ñi ngay fay. ñoo koy waxal seen bopp. wallaahi ñoo koy waxal seen bopp kon nag yal na la yàlla fay. te yàlla yokk xéewal gi. amiin amiin yokk man gi. amiin yokk xam-xam bi. te yàlla musal na musal seytaane musiba. balaa ak ak fanax la yàlla gis naa lépp. ndeysaan gis naa lépp. ndeysaan waaw yéen leen yàlla jàppale. mel ne moom ba taxaw ci balaa. a bees yàlla jàppale. amiin ko yàlla fay. kanam. yàlla yokk xéewalam. gudd fanam wërsëgam ndeysaan waaw yàlla ko yàlla jàpp amiin yaa koy waaw ndeysaan mbokku Sénégal euh, ma leen di xamal ma leen di waxati rek ne leen suñu yaay ji toog ndeysaan bi mu fee ñëw keroog euh, doomam ji ñoom moo ko jàppoon ak beneen mère wallaahi sonnoon na doxalul boppam dugg ci kër gi dañ ko jàpp fecc dugal bi muy génn ma sëriñ mm-hmm. suñu xalifa général le roi Mandeng jox ko ay garab ñu ne ko yaa booy billaahi boo ñëwaat yaay doxal sa bopp tey yàlla sotti na bi muy ñëw ci kër gi kenn xëcc ko kenn téewul loxoom moo doxal boppam moo dugal boppam ci kër gi loolu sant yàlla la Sénégal nee naa leen kii c' est le roi Mandeng c' est le xalifa général de Soundiata Keita ndeysaan ndeysaan ndeysaan sama firnde daal. ndeysaan dëgg la boo leen boo leen déggee xam ne suñu yaay yi nii daawul nelaw daawul lekk ba su tànk yi neexutoon sonnoon na pour bëgg dënn bi lépp doon fatt wax dëgg yàlla bi mu ñëwee jokkoo ak Cheikh Ibrahima Keita ci kattanu yàlla ci ñaari fan. ba tay rek nee naa leen bëri bëri ñetti fan ci ñaari fan daal suñu yaay ñuy gis résultat wax dëgg yàlla mbokk yi lii lañ naan euh, police maa fekkee la bëgg lii dara dàq ko ci àdduna ndeysaan lekk naan. ndeysaan waaw soo pour gi dara mënut si war a jàll. macha allah fàttal lépp. ñu fàttal lépp. allahu akbar wante lépp a yàggee ko te lépp a ngi jàll. ndeysaan ndeysaan lépp a ngi jàll maa ngi sant yàlla. ndeysaan maa mbokk Sénégal yéen a ko déggandoo wax dëgg yàlla gis ngeen suñu yaay ji bi mu fi ñëw sonnoon na trop wax dëgg yàlla am na fu mu toll woon sonnoon na trop trop trop ba ci kanam yàlla wax na ko moom bi muy dugg fii sax moom awutoon yaakaar wax dëgg yàlla parce que am na fu mu toll woon ba moom gëmul woon ni dina doxat billaahi yaakaaru ko woon mais ci kàttanu yàlla ak ci xam-xam bi nga xam ne moom la yàlla dénk Cheikh Ibrahima kayta mu def ci moom li mu war a def ci moom yabal jinneen yi jinneen yu leer yi mu yor yabal leen mm. def li mu war a def ci moom mu am résultat mbokk yi nee naa la yow boo amee ay jinne wala ay dëmm wane ko quoi franchement parce que lii nii c'est du jamais vu mosut am ci àdduna bi foo mënti jógee lu mënti nekk ci yow nga ñëw ci ñetti fan nga am résultat loolu fii la Kër Cheikh Ibrahima Keita kese nga ko mën a amee. le roi d'Afrique le roi Mandeng le xalifa général de Soundiata Keita sët dafay doon maam wax dëgg yàlla boo déggee ma la koy wax chaque jour lii moo tax kii du toog ci écran yi di fëgg dënn di bàkku déedéet da lay faj ba nga wër nga am mbégte kontaan te ñëw toog def témoignage wax dëgg yàlla. Ah, waaw moom du bàkku waaye ñi mu faj ñooy bàkku. billahi moom du bàkku de waaye ñi mu faj. ndeysaan ñun ñooy bàkku waaye ñun ñii ñooy bàkku. waaye moom moom mii. dëgg la du bàkku waaye ñun ñi mu faj. dëgg la ñun ñooy bàkku. alhamdulilah waaw ñun ñooy bàkku. alhamdulilah. ndax loolu mënul woon ba man ka. Ah. am nga droit bàkku. dëgg la di foom di woo ma ka defal. dëgg la suñu dëkkee taa ma ka defal. alhamdulilah billahi di nga baax. wallaahi incha allah jërëjëf suñu yaay. am droit nga suñu dëkkee ta moo ma ka defal. ndeysaan ndeysaan dangay baax wallaahi kontaan ndax jàmm moom si la a xaj wallaahi dëgg boo demee ba ñàkk jàmm ba ñu may la jàmm uh-huh. dangay bàkku dëgg la sama yaay billaay dangay yaa booy billaay dangay yaay si yow wax dëgg yàlla billaay si yow allah yàlla la yàlla résultat bi yëpp alhamdulilah gis naa résultat yàlla la yàlla defal jàmm may la gudd fan ak wér yaram waaw defal la xewal bu bëri bëri bëri waaw Yunus ndeysaan yow it dégg nga bi fu mu waxee wax dëgg yàlla ba mu ñëw keroog yow yaa àndoon ak moom ñëw ak beneen moment am na kàddu yu ñu jotoon échangé ma lay laaj rek yow ban mbégte nga ci am ak euh, lan nga ci am contentement ci gisaat sa yaay ak euh, ni nga xam ne ñëpp noonu lañ bëgg a gisee seen yaay wax dëgg yàlla mooy mu am jàmm mm-hmm. am tawféex di doxi soxlaam di waxtaan ak njaboot loolu la ñëpp bëgg donc yow lan ngay wax ci loolu waaw mm. macha allah alhamdulilah ndaxte euh, lii sant yàlla mm. tey am na fu ñu jaaroon euh, fu nekk demoon nañ fa tey mm-hmm. doon faju mm-hmm. dépassé nañ xaalis euh, mm-hmm. même ba si hôpitaux yi sax demoon nañ fa bon ñuy wax affaire opération may naa si benn message aussi di wax euh, opération bu ñu tëb tëb rek defal ko nit bu ñu defati opération nañ def nañ def si sëriñ si ñu defal leen li ah, ba pare ñuy dem de de bu fekkee ne dafa laaj opération ñu def opération bu fekkee laaj yu ko tamit waaw buñ ko def c'est très intéressant waaw kon ñu ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah macha allah. Sey Ibrahima moom kenn amul fayam. dëgg la wax dëgg yàlla. parce que weddi gis boobu bi. dëgg la waaw parce que moom lu muy def moom def gis la. ndeysaan waaw def gis la mais sant yàlla rek. alhamdulilah jërëjëf Yunus jërëjëf. kontaan nañ ndeysaan mbokk yi. nee naa leen ne dem ca Lambadiaye Bakku. jóge ca Lambadiaye dama ànd ak mbir moo xam du daanu. du jeng ku ànd ak moom daanu doo wadd c'est le roi d'Afrique, c'est le roi Mandaï. c'est le niveau général de Sundiata Keita. Cheikh Ibrahim, suñu sëriñ, suñu xarit, suñu sang. Waaw ñu bëgg rek ndeysaan nga waxtaan ñun tuuti ci suñu yaay yi wax que gis nañ liñ ci daj gis nañ ñi nga am tan doh dox ñëwaatal boppam degi dëgg yàlla rek euh, sant nañ la daal gërëm di la sant di la di ñu bëggoon xam lan mooy mbégte bi ci yow wax dëgg yàlla parce que lii nii dara daax ko ci àdduna faj nit ba mu wér ñëw toog di def témoignage dafa neex waaw alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw ba ñu sante yàlla di julli ci yeneen tàmba di gërëm suñu maam Sundiata Keita le roi d'Afrique le roi mandin yaakaar naa xol sedd na xol bu seddee wax du bari yaakaar naa li ñu bëggoon a wax yépp mm-hmm suñu yaay ji wax na ko waaw kii du xale mag la <laughs> waaw euh, lim gis rek la wax waaw yaakaar naa dégg ngeen discours bi def wallaahi jaar na fu ne keroog ba mu fii ñëw moom ak ñaari doomam ñoo indi Yunus mii ak magam bu jigéen ñoo ko jàppoo indi ko ba mu duggee sama néeg di bës tànk yi mm. muy bës tànk yi tànk yi di metti mm. di metti mënta lekk mënta nam yàlla def ñu jëflante ma faj ko uh-huh. ba mu am tan ci ñaari fan mu ñëw def témoignage luñ def rek lu may dellu sant yàlla di gërëm suñu maam Soundiata Keita mi nga xamante ni nii mm. moo ñu taamu jox ñi li ñu doon waaw xol sedd na li may xamal rek nit ñi mm. parce que Yunus mii dafa am lu am solo li mu wax mm. tout le temps ngay gis nit day feebar rek ñu dem def ko opération am na feebar yoo xamante ne ni ñun médecin traditionnel yi mën nañ ko faj fekk duñ ko opéré ñu bëree ngi ci armeel yi mm-hmm. opération moo leen fa yóbbu kon nañuy bàyyi xel bu baax a baax te xam ni ñaan mm-hmm. boo ko bàyyee ci ginnaaw mm-hmm. des ci ginnaaw boo bëggee jëm ca kanam da ngay jiital ñaan ca kanam ndax yenente bi bu demee ne bu demee ba ne euh, ñaan mooy ngànnaayu jullit ñaan lu am solo la waaw sant yàlla rek sant yàlla rek sant yàlla euh, moom problème mu respire nga euh, bu bu nekk si biir xol mm-hmm. a respirer ko garab bi mu mën a respirer normal bi wax li mu wax. non maanaam dafa waroon dem hôpital. ñu defal ko ñu defal ko opération. Uh-huh. jël benn. Euh, raccord benn appareil. Uh-huh. def ko ci xolam. pour muy mën a nooy. yàlla dogal Yunus mii gis indi fi yaayam ñu ñaanal ko. ba demul def opération. bi nga xamante ni dañu waroon jël machine dugal ko ci xolam. muy nooy ñun ñu ñaanal ko. ci kattanu yàlla ak darajay yi jërëjëf Keita jërëjëf ba loolu yëpp jaaru ci. kon xam-xam am na. alhamdulilah li may wax rek ñun Mandé. lu leer la ñu ñun mande wallaahi lu leer la ñu. wallaahi day am lu ñu mënul luñ ci dugg. wallaahi lépp luñ ne la lii day am. billaahi day am day am ci kattanu yàlla ak daraja yi su jot xool sedd na yaakaar naa loolu lañ naan. sauver la vie. waaw loolu mooy sauver la vie.